Juma caare loo ñoom ni jegaano yàlla yi. eh Seba da ngay woy de. bilaa wala dara yaram bee tàng. lan moo la tàng lool. yaram bee tàng lamb ji daan neex. lamb bi neex na. waaw. tey looy yëg. sentir lu bëri. Seba borom final yi. bilaa wala mu ngi ah? bi mooy quinzième final. waaw bi mooy quinze. c'est vrai loolu noo gisee lamb jugub tey. non neex na. neex na trop waaw ndax jugub sama dëkk la. sa dëkk la de miin naa ko waaw. waaw waaw du ko rek de. waaw ngay wante tëkku yu métti boo dem final tey. billahi Abdou Karim xam nga ko. non damay dégg turam siwul sax. gan Abdou Karim siw nga naan siwul. siwul. kii dafa jékki-jékki woon demoon Sénégal woon ñib siwaat. tey lay siw ndax man lay bëreel. nee na xale bi dellu si na. wa ci kanam. ah ba ci kanam. loo koy yóbbaatee nee na danay ah waaw ndax sama sama supporter tey koo fekk fi mu toog nga laaj ko ah. day xam ne man maay daan ah. ndax dama laa jox confiance ñu jox ma confiance ah. billahi moom nee na amoo doole de moo la ëpp doole te dafay jàpp daan waaw ci kanam la Seba looy wax supporter yi non di bëggee ñëpp di bëggee Mame Birame Ndiaye Gandiaye suma waa dëkk ñoom Ibrahima Diabé ñoom Ousseynou Ndiaye waa booy may àndal ñoom Aliou waaw gaa yëpp ñoom Maykoor Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg waa xam waa Diouroup. Uh-huh. waa Jaxaw Soop Somb Ndaagaan fi ma dëkk bàyyi ma kenn. Uh-huh. maa ngi bëgg yëpp ba waa Dakar. Uh-huh. barkaar dama damaa kontaan samay fans. ndax dañ may bëggal dañ may dundal man lamb laay dund. barke alxuraanu karim. te ci kanam lay leer. billaahi walaay taalaahi. jaajëfatee billaahi. amul ragal baay ajam bu tawes. amul ragal. ak asa. ok merci. bëgg a paax a namonam jomne a fela i a fela de waaw get Lul Seseen yen maaga demi final roga fi'ka i o gar meeke final oxa meeke nam geto ken non njom a refa rek a waaguma jabin it Ndulfo Sefa nu ma sangat a i mo sengat nu mo sengat nu nga sooga xaya xa toog nga soo ɗomu waaw waaw a ah, xa ɓisin kan ale xana ma fog de non comme nu te na a refa doole mi bun den mi bun den est ce que bun doole mi bun doole a ah. xale bu ndaw la dama liggéey barke maam Ibra ale xana ma fog de kana sooba kaga fa le mbeto ah. fade kam ulango le xa ale ka we ando naye wo mbegalang ñaal parce que a inoorta a ɗoma ɗom trop mbaase a ndam billah wallahi moo gidma den bo a paam roog ndeera soroogu yaal ndaa mo sant'a den gidma den a paax a paax fale daal faaxe fat i njefa quoi waaw waaw kon ino souetan iyo bonne baa ngi noonu lu waay doon dina ambu ñu xool nan lay demee diggante Abdou Karim ak CFA Diakhao guneega am na eh Abdou Karim Diakha Bal Bagatena CFA daa diis Abdou Karim mu ngi koy jéem a ale joge yaa njaaxa gen fogo laam dee dee basil naa na arbitre atte na aca CFA am na avertissement Abdou Karim moo ëpp avantage na ko CFA daan na Abdou Karim